salaam sama gars yi na ngeen def mbaa yéen a ngi am tawféex waa tey dama leen indi astuce pour suñu mbokk jigéen yi nga xam ne dañuy am écoulement de sang yu prolongé wu pour lool dañuy wut euh, garab bi ñu naan son ñu wut poudre xas bi moo nekk nii bu ñu amul poudre bi aussi xas bi aussi baax na ak tamit ay feuilles xobu màngo ñu wut xobu mango bi ñu wut ci ñaari ngëm ñu koy waxee këmp waa ñaari loxo nii nga tubb ko xas bi tamit boo ci amee benn takk baax na nga raxas ko ba mu set nga daal di ko boole baxal ba mu ñor soo ko baxalee donc nga kii naan kaas suba kaas ngoon kaas bi ñu ndekkee suba ak ngoon euh, bu ma tey ñetti fan incha allah di nga gis ni deret bi dina arrêté waaw kon nag bu leen fàtte abonné wu. dee leen abonné leen aimé ngeen am seen astuce yu naturel ay plante yoo xam ne fii lañ koy béyee fii ci Sénégal suñu réew ñu faju wér taw féex naa ci jàmm